wasalaama tasliiman ma jóg la géeyal sëriñ tuuba te ngërëm ci barke seex mustafa ci sëriñ baara la géeyal sëriñ tuuba te sàkku ci barke seex mustafa mbàkkeeg sëriñ ña ko lay tàmbalee ci mbirum si di lamin baara mooy turandoo xayru xalxulaayi sayiduna salaalay la si abda sëriñ baara mooy turandoo la si abda sëriñ baara sëriñ baara kàttan nga ñool ma kaam ci taram ya mu am la yàlla fab yu li jagleel sëriñ baara moo faña fab tabam bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom siidi lamin baara moo saña fab tampamub bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom siidi lamin baara jaasi dogal jafa kun la yàlla daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox Sidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Sidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Sidi Lamin Baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moom mag waa jundulaay ña ngay jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji làmb dee su fel sampub sëriñ baara sampub sëriñ ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a naan ji la bu leegul fel sampub sëriñ baara bi